waaw mbokk yi ngeen may message bi jàll parce que da ciy am solo ñu romb nit ñu te lu ñuy wax loolu du du du loo xamante ni nii moo taxoon ñuy jóg dañoo bëggoon bu ñuy rawatina le préfet yàlla dogal na lépp loo xamante ne dañuy def ñu bëgg a déggoo ak moom suñu saafara suñu njàmbat bëgg nañu mu andi dee pour ñu lànk nañ bañ mooy dañoo taxaw tey suñu suñu suñu suuf suñu am na sa mbokk nga xam ko wala nga ñàkk koo xam kon na génn leen génn ci lii nga xamante ne moom moo tax ñu jox tey di dox di wax waa naa jël donc ci wolof euh, mbirum coowul suuf la diggante population bi la ak maire bi mbakke Mbacke Abdou Mbacke Ndaw moo def benn expropriation foncière maanaam jël suuf yoo xam ne seen borom a ngi fii ne këtt ne jonn yor seeni këyit mu jël suuf si jox ko ñeneen ñu ko neex xamuñu ay politicien lañ xamuñ ñu mu ko jox en tout cas jël na suuf si jox ko ñeneen doomi aadama alors te loolu duñ ko nangu doxu tey bi nag mooy balaa mu muy doon trop tard parce que tamit bu ñu nekk ba nit dee ci ah, nit sax ñàkk na ci bakkanam déjà soxna say ndaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yóbbu ko àjjana moom moom moom parcelle numéro 289 mu ngi ko jëndoon ci ku ñuy wax Mortala Mbeng mu toog ba benn bis ñu ñëw ne ko parcelle bii secteur municipal ne daguñ ko koo jaay te moom ndaw si mu ngi ak acte de vente am noonu la toppee parcelle am ñu di ko ci xeexal ba moom génn na àddina borom këram dénkaane na njabootam nee na moom day génn Mbàkke gannaaw suuf si rek la fi am parcelle bi bëggoon koo defar am fu mu dëkk comme maire bi nangu na ko moom day gàddaay ma nga ma nga Kolda boobu ba tey ñu ngi koy woo di ko dëfal pour bu bëggee ñun ñu ñëw fii dinañ ko incha allah jàppale ba mu am fii kër ndax Mbàkke fi la sëñ Touba gane si fii jàmm moo fi mën a xew ndax dëkku sëñ Touba la. xam ne yëgaguñu ne nangu nañ seen terrain am na ñoo xam ne yëgaguñ ne nangu nañ seen terrain ñooñu tamit ñi ngi woo ñëpp ñu ñëw ci xeex bi xamal leen ne terrain yi. ñoom ñoo ko moom te ñëpp dinañ jotaat incha allahu seen terrain yi ndax kilifa yi yaakaar naa dinañ ci jóg seeti nañu préfet présenté nañu benn mémorandum mémorandum boobu incha allah dinañ ko jébbal monsieur le préfet du département de Mbacké mu jébbal ko moom it def ci li ko war li ci des mu jégg jébbal ko gouverneur ak président de la république. boobu ba léegi nag ñi ngi dànk nit ñi ndax bañ beneen bakkan tëddaat parce que ñii am na ñoo xam ne jën nañ jaas ñi jël seen i yat nee nañu ku ñu fekk seen terrain nañu rayante ñun nag jàmm lañ bëgg ñu buloo moo tax ñu def manifestation pacifique ñu bëgg ne. maire bi ñu wax ak moom mu delloo ñëpp seen parcelle ndax benn bu desee benn rek combat bi duñ ko arrêté. Birahim Diagne je suis le coordonnateur de ce collectif fi teew tey ànd ak benn collectif boo xamante ni ay mag lañ yoo xamante ni Mbàkke moom moo leen ñor donc taxawu askan bi moo leen tax a jug ñu daal di jug ne. ñi nga xam ne dañoo nangu seeni i nan la def ba bañ fexe bañ jotaat ci seen i terrain te terrain yooyu lu ñu ci gën a jaaxal ni ñu koy joxee sax moo ñu moo ñu gën a doy waar parce que terrain da gis koo xam ne nii terrain rek mi ngi ko jënde woon à hauteur de 2 1 million de francs CFA la koy jëndee mais même terrain bi ngay gis ñu joxaat ko nit nit kooku ñëw jaaye ko à 200000 francs donc mu nekk loo xamante ni ku koy seetaan rek sa parce que daf la dalul donc ñuy wax que ne Mbàkke ndaw ñi la majeure partie seen kër bàyyi lañ dëkk wala seen kër yaay amuñu sax terrain mais sunu terrain yooyu ñu koy jël di ko may ay ñu naan soi-disant ay kilifa ñan ñooy kilifa ay terrain amul kilifa amul ma sàmba amul ma demba terrain képp ku dëkk ca dëkk ba am nga droit am nañ la wax nan ngay def ba ci mais ngeen def am ci ñu kuti kuti leen terrain wala seen yaay nga dem wëlbatikuwaat jëlaat même terrain yooyu jox ko ku la neex a kilifa yoo xam ne nii dañuy travailler si l'état état da leen di xaalis am nañ droit am nañ xaalis dem jënd terrain mais nañ seexlu li nga xamante ne dañ leen koy may Sénégal bari na coowul terrain il faut que nag ñu wax ci taxaw ci nag wax ci collectif bii ñun dañu leen di encouragé di leen félicité di leen wax ne bu leen dellu ginnaaw lépp lu ngeen ci nekk ñun à la jeunesse ñi ngi ci seen ginnaaw ñi ngi ci seen kanam lépp lu mu laaj aussi tam tam danañ ko ci def wasalaam. man euh, Samba Koumé man maa représenté fi Forum Civil département Mbacké dañ fi ñëw tey pour accompagner population ndaxte nag dafa am loo xam ne nii am Mbacké jóge ci maire bi. maire nag ñun dañoo jàpp moom moo war a soulager di defar ab population mais bu dee maire moo dem di créer ay problème ay population ñun xamatuñ si dara ndaxte nag moom dafa commencé woon ne day def recensement ci ñëpp ñoo xam ne dañoo am donc euh, terrain fii si Mbacké pour accompagner leen pour ñu am këyit bu baax ba ñëpp adhéré mu dem ba ci digg bi muy woo ay ñeneen nit donc nan leen may naa la terrain bi may naa la terrain bi loolu moo indi problème yi yëpp ci loolu nag kenn mosu koo dégg parce que terrain euh, maire habilité wul di may ay terrain am ko dafa am fu mu war a jaar commission banque commission bi ak délégué quartier yëpp affaire daf leen jaaxal donc ñu lancé appel monsieur le préfet di lancé euh, appel donc monsieur le président la République pour que lii ni jóg am Mbacké ñu réparé ko au plus vite avant muy egg foo xam ne kenn du ko bëgg. maire waxtaan nañu mu avant lii di am man en tant que représentant du corps dem naa waxtaan pour attirer attention pour que mu reculer donc def loo xam ne nii day jur jàmm mais rek donc dégg ko loolu moo tax li commencé am ca xam naa ne bu ñu yeexee leneen dana am.